بسم الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على هذه الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سوى الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإيمان وإسلام الإحسان إلى يوم الدين ñoo ngi nuyu bokk yi yëpp di sant suñu borom bi subhaanahu wa taala ci ndimbalam ak tawfeexam ak kàttanam ak xikmaam ak xereñam li nga xam ne ci lañu bind melal mu kàttanal lu jox na it xel ñu mën a góorgóorlu bu baax ci jëfandikoo xel moom yi nga xam ne defal nañu ko xel di li nga xam ne doomu aadama bu settantalee dana yokk ak ngëmam dana ko dëgëral it rawatina bu ca boolee jëfe ndigal teer tere ba àggam ci ngëm dëgër dëgg dëgg dëgër nga xam ne jaam bi dana dox ci ngëm gu dëgër ba àgg ci li mel na kuy jàlloo ak boromam subhanahu wa taala ngir su boobaa digganteem ak boromam jaamu gi muy jaamu ak jëfe gi muy jëfe ndigal yi ak teet gi muy teet tere yi meññetam dafay nekk leer goo xam ne day yee leer gi ci biiru moom doomu aadama nga xam ne dafa askanoo ci suñu borom subhanahu wa taala leer boobu bi muy yee ci biiram nga xamante ne leer gu askanoo la ci boromam mooy tax ngëmam gën a dëgër muy yëpp boromam it doon te gisu ko ci ay gëtam ba loolu dana sabab jaam bi heure bi yeggee ci di taxawal julli dana mel ni mu ngi janloo ak boromam mu tiim ko tiim boo xamante ni day mel ni jëm joo xamante ni yaa ngi koy gis nga xam ne noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni jaamul sa borom ba mel ni yaa ngi koy gis nga xam ne soo ko gisut xamal ni sa borom subhanahu wa taala mi ngi lay gis hadis boobu yi nit ki si fonkee jaamu yàlla fonk ndigal yi tey wattandiku tere yi dana dem ba àgg ci di yëg boromam donte suñ borom subhanahu wa taala du lu ñuy gis ci ay gët ngëm googu nag muy ngëm suñ borom subhanahu wa taala li ci aju dafa bari ndax gëm yàlla day ëmbaale gëm yonent yi gëm téere yi yi nga xamante ni suñ borom bi subhanahu wa taala jaarale ko ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam daa day ëmbaale siraat day ëmbaale aljana ak sawara ak dee ak dekki ak malayka yi loolu yëpp nag li koy dëgëral ni ñu ko waxee léegi rek mooy jihaat ak sa bakkan ba lépp loo xamante ne suñu borom bi subhaanahu wa taala gërëmu ko nga mën koo teet ci pas-pas ci kàddu ci jëf ngëm nag ni mu gën a dëgëre rek jaam bi di gën di jox boppam boromam ndax mboolem li nga xamante ni dana koy gàllankoor ci kaw suuf muy adduna si mu nekk di fi dund ni te muy ku koy gental donte ku fi sax ku fi nekk la ab diir waaye jaam bu mën di doon adduna ab diir da nga fi nekk gental ko war a dëkk ji ci kër goo xamante ni yaa ngi ko defaroon ci say loxo benn muy këru jiw wala muy këru safaan waaye lu mu ci doon rek yaa ko tabaxoon ci sa pas-pas tabaxoon ko ci sa kàddu tabax koy ci sa jëf mooy tax adduna ji mu nekk ak bakkan nga xamante ni mu ngi ci biiram suñ borom muuraale bakkan ak ruux muulin woo xam ne muulin woo xereñ la nga xam ne dafa mel ni urus wu ànd ak leneen lu dul urus ñu moole leen faaw rek sawara mooy li nga xamante ni mooy leen di teqale sawara woowu nag ñaari sawara rek moo fi nekk muy sawara ëllëg wala sawaraw jihaat ak sa bakkan ci adduna di teg sa bopp ay coono ak ay naqar ak ay tiis ci muñ yi ngay muñ li nga xamante ni suñ borom bi subhanahu wa taala tere na la ko beneen noonu bi ci des muy seytaane mi nga xamante ni du dañ di xiir nit ki ci yoon wi nga xamante ni mooy ni ko suñ borom bi subhanahu wa taala tere di ko ca indi nit ay xalaat ak gisiin yoo xamante ni du bokk la suñu borom subhanahu wa taala gërëmul nga xamante ni moo leen lu mu mën a lëkkale xalaat yooyu muy sàmm ci moom ngir jaam bi mën a dem ca teree rek seytaane dana ko lëkkale ak loolee loolu mooy tax nag nit ki war a góorgóorlu bu baax ci jixeet ak bakkanam ndax suñ borom bi subhanahu wa taala li mu wax ni laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwim summa radadnaahu asfala saafilina suñ borom dafa bind doomu aadama ci ñeenti xeet boo ko doon misaal fi ahsani taqwim suñ borom bind na doomu aadama ci leer goo xamante ni dafa askuna ci moom ndax yonent yi alayhimu salaatu wasalaam seen roo leer gi ko suñ borom bi subhanahu wa taala bindee bukkut ak leer gi nga xamante ni ci la suñ borom bi subhanahu wa taala bindee malayka yi te leeru yonent yooyu alayhimu salaatu wasalaam tamit ay doomu aadama yeneen doomu aadama yi ci desit ngir ñu ne na wuyu wootab yonent boobu yi suñ borom yi bind na ci ñoom ci seen roox muy rooxu doomu aadama leer goo xamante ni dafa askanoo ci suñ borom ak melaw woo xamante ni melaw malayka la suñ borom subhanahu wa taala def ko ci doomu aadama ak melaw nit ki ñu doon ak melaw woo xamante ni melaw bayima la nit ki nag war a góorgóorlu ba fexe ba bokk ci kuréel bu njëkk bi muy fii ahsani taqwim te bañ a bokk ci suma radannahu asfala saafiliina nga xamante ni asfala saafiliina mooy li nga xamante ni suñ borom daf ko terle woon doomu aadama bind ko ci anam gee doomu aadama bi mu wëlbatiku tànn di dund ci dund boo xamante ni bokkut ak dund gi ko suñ borom bi subhaanahu wa taala fàgguloon fi suñ borom di wax ni ñi nga xamante ni dañoo nuur ci dunduk adduna gi nga xamante ni luy dañ la nga xamante ni dund bayu na li muy dund li leen yitteel rek mooy lekk ak naan ak nelaw ak sëy lépp lu lekk di jar jaral na leen ko moo xam nu ko seen bakkan bëgg rek ci wàllu bi lekk noonu lañ koy doxale duñ seet ni lii lu suñ borom bi subhanahu wa taala araamal la wala bu dee du daggale it dana leen jaral fàggu alal ju xaraam ngir mën a am lekk googu donte jëmmi lekk gi lu dagan la waaye nag mën nañoo fàggu wërsëg bu dëgëru ngir mën a dund ci dund googu yi ba tey it nelaw nga xamante ni waxtu wu ne ñu bari ay nelaw la ñuy doon nga xamante ni nelaw moo leen gënal bu waxtu suñ borom yu jotee daanaka dañuy continuer rek di nelaw duñu am benn xalaat rek ba tey it ci wàllu lekk ak naan it ni ñu ko waxee léegi lekk ni ñu mën a lekk rek bu ñu lekk dañu lekk ba seen biir fees dell waaye tamit nag ni ñu mën a amee lekk ga rek dañ koy daal di def bu dee ci wàllu sëy li daanaka melo bay na lañ ciy dunde duñu xool ni lii lu suñ borom bi subhanahu wa taala araamal la ci ñoom wala déet waaye fépp fu leen bànnee xub say dikkalee rek fu ñu ko mën a faja rek duñ xool ni kii seen soxna la wala du seen soxna wala kum takk la wala kum tëkkul la fu ñu ko mën a faja rek dañ ko fay faja moo tax suñ borom ni bal humoo adal in humoo illaa kal anham ba ci yàgg mu teg ci sax ne bal humoo adal ñoom de dañoo mel ni bayu na yi ba yàgg mu teg ci sax ne ñoom ñoo gën a réer bayu na ñoom ñoo gën a sànku bayu ma ndax bayu ma la suñu borom bind ci woowu yu melo nga xamante ne lekk ak naan ak nelaw ak sëy rek mooy melo yi nga xamante ni moom bayu ma ci la nekk te mënu cee jóg doomu aadama bi nga xamante ne suñu borom daf ko teral defal ko xel defal ko yu bari muy war di xalaat bind ko ci yeneen melo yu gën a kawe melo bayu ma su demee ba nga xamante ni moom melo bayu ma yooyu yii ci la nekk su boobaa daf koy gën a suufee li nga xamante ni doomu aadama bu gën a melo bayu ma yooyu bokk na ci añaan ak dóorante ak xeex agressé ndax su fekkente ni bëgg ngaa lekk li nga war a lekk ku ko mën di yore mën nga rey nit ngir jël alalam wala wërsëgam mën nga lor nit ngir sa dund rek loolu nga dëgg nu yent yooyu lekk ak naan ak nelaw ak sëy lépp lu ci nar a dox sa digganteeg bànneex boobu yi nga soxla daanaka dalay jaral nga faagaagal ko ci loolu nga ci amee benn xalaat loolu mooy melaw bay yi nga xamante ni doomu aadama benn bu ci nekk war na ci fexe génne boppam ci dugg ci melaw yi nga xamante ni mooy melaw melaw melaw nite muy nekk nit koo xamante ni ku maand lay doon fi ko suñ borom subhanahu wa taala yem la rek ci lay yem waaye nag melaw malayka dafay gën a kawe loolu nga xamante ni daana sa biir dund yëpp li nga xamante ni sax suñ borom teg na ko daganal la ko sax am na ci yoo xamante ni sax yow da nga ko wattandiku ngir bañ a dugg ci lu lënt lépp lu lënt sax da nga ko wattandiku ngir bañ a dugg ci lu xaraam di takkaayu takkaayu malayka mi nga xamante ni ñoom daanaka fépp fu ñu toll ñu ngi jaamu seen borom ñu rëkk ko duñu sigg ñu taxaw duñu sëgg duñu duñu duñu sujjóot ñu rëkk ko it duñu taxaw duñu sujjóot ñi nga xamante ni dañuy julli julli mbooloo ñuy julli julli kenn kenn kenn ku ci nekk melawoo ni sàbbaale suñu borom du ci jub mukk doomu aadama nag su fexee ba nga xamante ni pas-pasam kàddum jëfam lépp góorgóorlu na ba takkaayoo ko ci melo yi nga xamante ni mooy melo yi suñu borom subhanahu wa taala gërëm bu mën a tuccee def li suñu borom subhanahu wa taala gërëm su boobaa day gën a kawe malayka ndax malayka moom melo yooyu ñu amee suñu borom daf ko ko binde naturellement noonu la mel mënu cee suppi ko tabia tabia yi la su ko defee nag ki nga xamante ne góorgóorlu ak farlu ak njàmbaar di romb li nga bëgg mu dëppoog sa bànneex yooyu yëpp nga di ko wan gannaaw ngir mën a yegg ci woowu melo su boobaa fii ahsanu taqwim boobu ba tey dafay daal di taxaw da ngay gis ne kon jëmm jooju dafay gën a kawe malayka fuuf te duñ bokk sax mooy tax kenn ku nekk war di góorgóorlu bay bokk ci kuréel boobee mooy taxit suñ borom ni wa lazina jahadoo fii naa la nahdiyannahum subulanaa wa inna allaha la mahal muhsinina ñi nga xamante ni ñu ngi jihaat ci ñun yàlla mooy di wan gannaaw lépp loo xamante ni seen bakkan dëbb na ko te dëpp wutoon ngërëmal yàlla ñi di ko wan gannaaw ak loolee lépp lu ca mën a aju ci bakkan wala bànneex wala lu niru lu nëtax wala lu niru lu naat yooyu yëpp ñoom danañ takkaayoo melaw danañ góorgóor la farlu ba duñ jege loolu mukk ngir seen borom loolu lépp nag ni ñu ko waxee ci njël benn xel moo ci mën a dimbali doomu aadama ndax nit ki lépp loo xamante ni ñu ngi koy sonn ci lu baax su xalaatee lu baax li muy sonn lan la koy jural ëllëg ci tawfeex ci ngëneel ci xéewal yoo xamante ni yéemuwul fenn dana tax lu baax loolu ñu ko digal mu gën caa farlu gën caa góorgóorlu gën caa takku ndax fa mu koy mujjee la fa mu ko jëmee moom lay xalaat niki noonu it jaam bi dana tax mu góorgóorlu farlu bu fekkente ni jiital na xelam ci safaan yi muy def nga xamante ni dëppwut ak la suñu borom subhanahu wa taala gërëm donte bànneex bu teew la wala am am bu teew la wala naataange bu teew la waaye loolu lépp mu ngi leen jëme ci naqat ak tiis mbugal moo xamante ni yénwul fenn dana tax nga mën a woon gannaaw loolu mooy tax nit ki su fekkente ni ñuy wax a taqal nii rékki ku na ci bépp pas-pas boo xamante ni suñu borom bi subhanahu wa taala gërëmu ko takkaayoo def li ñuy wax a taxal nii mooy takkaayoo mel yi nga xamante ni moom la suñu borom bi subhanahu wa taala gërëm li ñuy wax a tajal lii muy leeruk suñu borom dafay mën a feeñ ci xolam muy leer gi nga xamante ni mu ngi ci biiram te askanoo ci suñu borom subhanahu wa taala bu fekkonte ne lu doon nelaw la wala kiiraay doxoon fi kiiraay loolee day dañ bu doon luy nelaw la day yeewu ndax kiiraay du dara lu may bakkan ak bànneex jëfe lu araam ci say cër wala nga di ko yéene ci sa xol wala nga di ko wax ci saw làmmiñ loolu mooy sabab kiiraay leer bi bi nga xamante ni mu ngi ci sa biir te askanoo ci suñ borom waxtu bu ne kiiraay yi dafay gën a tar ngir ñaawteef yooyu nga xamante ni yaa ngi koy jëf di ko wax dafay gën a fàtt loolu di la gën di soreel sa borom waaye su fekkente ne yaa ngi takkaayoo melo yi nga xamante ni mooy melo suñu borom bi subhanahu wa taala gërëm dafay mel ni kiiraay yooyu dafay dagg di gën di set suñ gën di gën di dëgër nit ki nag mun ngërëm ngënoon gën a dëgër ci boromam boromam daf koy gënal léppam ndax la fa boromam daf koy gën a doy ci lépp ndax ni nga ko waxee ngën li ci aju muy àjjanaak sawaraak téere yëpp malayka yëpp siraat ak dee dekki yooyu yëpp ni ci gën nit ki gën a dëgëre ci la koy gën a bàyyee xel ni nga ko gën a bàyyee xel nag ci lay gën a bàyyee xel li ko suñu borom bi subhanahu wa taala digal mu di ca tënku ci lay gën a bàyyee xel li nga xamante ne suñu borom bi subhanahu wa taala tere na ko ngir mu man koo teet mooy tax boo seetloo juróomi ponk lislaam yëpp fi ñu jëlee nit ki li ci ëpp solo mooy jikko ju rafet ak pas-pas yu rafet mooy nit ki wéetal boromam wéetal gu mat sëkk tënku ci liggéeyam teet ay tereem waaye ci digganteewul mbindeef yëpp yëpp mu di ko rafetal ci gën gaa rafetee ni anam loolu mooy njàngalam yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikk wax ni suñ borom daf ko yónni ngir mu mot li jikko yu rafet yooyu nga xamante ne yonent yi ñu ngi ko daan tabax te bépp yonent boo xamante ne suñ borom subhanahu wa taala andi na ko ci kaw suuf def def ci moom ak leeram ngir mu mën a yar nit ñi yee leen ci digganteen ak seen borom seen diggante ak seen morom ba seen digganteeg seen borom dana nekk lu set ngir ëllëg bu ñu dajal moom mën a làq ngërëmam waaye seen digganteeg seen morom it dana nekk lu sell loo xamante ni benn lor du ci juddu ci seen diggante ba seenu nekkin ci kaw suuf dana nekk nekkin wu rafet yonent yi nag lépp luñ ci tabax ñaari doomu aadama la suñ borom bind noo xam ne boo gisee suñ borom al insaan mooy koo xamante ni fàttekat la ñaare muy ku luñ mën di jàngalee buñ fi jógee ab biir rek njàngale ma dafay mel ni dafay riir waaye suñ borom indiwaat keneen koo xamante ni dana max na woon ñoom ba fii ci mujj ci yonent yi alayhim salaatu wasalaam di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante yonent yooyu suñ borom daana yebal ñoo xamante ni ñu daan jege yonent yooyu nag léeg-léeg buñ fa masaa jóge ñu wuutu leen seen njaboot wuutu leen njaboot bi léeg-léeg dana nekk doom léeg-léeg it dana nekk taalibe ñu wuutu leen ci liggéey boobu ñu leen def waaye yeneen fii ki ci mujj di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu fi jógee dafa wax ne suñu borom bi subhanahu wa taala bopp téeméeri daal bu ne dana yebal koo xam ne dana yeesal mbiru diine ji loolu mooy loolu lan mooy li ko waral mooy doomu aadama lépp loolu mel ni indi loola bu fa nekkee it dana dem ba mel ni lu leen sori ndax ñàkk buñ koy ñàkk jëfe ak ñàkk buñ koy ñàkk melawoo bu dee melo la wu suñ borom bi subhanahu wa taala gërëm wala bu dee lu mu bëgg ñu di ko jëfe la wala ñu di ko doxee wala ñu di ko waxee ndax lislaam moom du ràpp ndax alquranul karim mi ngi fi ahadisu nabawi it ñi ngi fi waaye nag boo ko seetloo nit ñi ni ñu ko war a jàppee ak ni ñu ko war a jëfe ci seen biir loolu mooy des mooy tax ñaare képp ku ñëw liggéeyam ak léppam day nekk loo xamante ni dafay dimlis nit ñi ci yooyu meloo ci alquran ci sunna ngir ñu gën cee takkaayoo ngir ñu mën a mucc mën a texe mën a làkk ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala li gën a kawe yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu fi jógul léegi ñi fi jaar bari nañ ndax boo ko seetloo boobaag léegi mat na junni at ak ñeent téeméer ci lañu nekk ak ñaar fukk ak juróom-ñaar bu dee bépp téeméer la at bu ne kon boo seetloo ñi fi jaar danañ war a toll ci ñaar ñaar fukki nit ak lu topp kon bu daanañ war a toll ci fukki nit ak ñeent ci ñooñu mu wax waaye baatu man boobu mu jëfandikoo it mën naa nekk kenn waaye nag mën naa nekk mbooloo ndax lislaam lu mu gën a yaatu rek ñi nga xamante ni ñooñu war di dellu si nit ñi gën a war a bari ki nga xamante ni nag moo ci bokk na ci ñuy wax ni ñu mën a wax ni moo ci gën a ràññeeku di Sëriñ Tuubaa ñu indi bëgg indi waxtaanam boo xamante ni benn téeréem bu ñu wax mu lay yëngu sudur loo xamante ni dafay nooyal dënn boo seetloo tuur téere bi rek mu lay yëngu sudur dënn ngir mu mën a nekk lu nooy xol nekk lu nooy lu tooy ci jamono bi ne ci saa su ne waxtu ne loolu ngën gu dëgër rek moo ko mën a may nit ki nit dana dem ba àgg ci buy julli rongoñam di tuuru wala mu mel ni mu ngi jandoog sawara wala mu mel ni mu ngi jandoog aljana wala mu mel ni ñu ngi ko takk di ko yor ci biir bàmmeel wala mu mel ni taxawaayu bis penc bi taxaw na mu mel ni loolu suñu doon wax ne wa kulluhum aatihi yawma qiyaamati fardan jël jën bu nekk dana wéet ak boromam ba jàpp ni moom rek la bindoon nit dana dem bay julli àgg ci foofu li nga xamante ni dafa am ñetti nit yàlla yoo xamante ni dañoo duggoon ci benn jàkka am ku ñëw taxaw kàbbar ne allahu akbar kenn ci ñoom ne kazabta fen nga li nga wax du dëgg ku ne xam na ni ku ne allahu akbar nga ne ko li nga wax du dëgg lu rëy la borom xam-xam yi nekk foofu dañoo daal di jagañ-jagañee kooku génn ci biti rey ko fa saasa bi mu kàbbaraatee keneen ka ko ñaareel ne ko kazabta ñu jàppati kooka génn ci biti rey mu dee ba ko ca ñetteel am ku ni waaw te ñoom nee na laaj ba xam ñoom li ñuy wax fan lañ ko teg bi mu ko laajee mu ne ko dañoo yàlla képp ku ko tudd te muy dëgg ci yow ci sab xol mbooleem loo xamante ne mu ngi ci sa wet rek day ànd ak yow di tudd yàlla nga xamante ni moom baat boobu mu jëfandikoo ci kee wax allahu akbar mu ne ko li nga wax du dëgg jublu ci baat bi li mu wax waaye yëg na ni moom tëkkaa yowut mela woo xamante ni moom la war a mel ba nga xamante ni su tuddee baat boobu baat boobu dafa war a nekk lu jeexital ci moom loolu lépp nag gën gu dëgër moo ci yóbbu nit ki gën gu dëgër nag la koy may jaam bi mooy tënku ci li yàlla digle boole ci teet li mu tere li mu dogal ci nga gërëm ko di ko sant ci xéewal yi nga xamante ni mën su ko lim yi mu defal doomu aadama ci jëmmam ak ci li ko wër moo tax mu nekk téere boo xamante ni képp koo xamante ni jàng na ko te jëfe ko dajale na ci xeet xam-xam yu bari ñi nga xamante ni moom bi mu dikkee gis téere yu bari yoo xamante ni mbindee fi daanaka jubloo tunku yoon yi nga xamante ni ci la ñuy jaar ngir mën a seen seen bakkan seen ruuxu mën a set ci noonu ñu ko waxee léegi nga xamante ni ñaare ngir ruuxu mën a set moom ci ñaari sawar yi rek lees ko la mën a nekk benn muy sawaraw ëllëg wala xiyaasu billah wala ci sawaraw jihaat ak sa bakkan taxoon na mboolem ñi ko njëkkoon ci ay nit yàlla ci téere yi nga xamante ni taalifoon nañ ko lu mel ne xoojul fulub wala iyaa ulumu diin wala anwaam qudsi yi wala majmuhu rasaa'il imaamu Xasaali yi wala bidaayatul hidaaya sax moom lañ ci biir majmuhu rasaa'il wala téere bu ne siraaju taalibiin nga xam ni wala xikam bu ibnu ataa illaa xeeti téere yooyu yëpp nga xamante ni ñaare day téere yu gudd nga xam ni ñoo ko doon def sa fas bi jamono ñi ci ëpp ci doomu aadama am nañ jàngal téere yooyu daf ko doon jël di ko taalifaat di ko ngir di ko tënk ci gàttal nga xamante ni bu doon téere ba ruq ga lay jël yëpp indi ko nga xamante ni ci dana nekk lu gàtt loo xamante ni da nga ko mën a da nga ko mën a jëfandikoo te def tënk goo xamante ni da nga ko daal di mën a jàpp kenn tamit léegi nga wat rafetee ni anam loolu mooy tax bi nga xamante ni ñu ngi ko tiim di melo yu si dóor ak yeneen téere yi moom ndax dër yi nga xamante ni moom la def ci jawharu nafis waaye yeneen téere yi yooyu yëpp ci tasawuf ci tasawuf tey boo ko fekkoon fekkoon tamit yaa ngi ko doon ci téere yi xamante ni moom la mag ñooñu njëkkoon def yooyu yëpp ko ci fekk waaye nag dafa nga guddi yoo xamante ni ngir nit ci mën a jël lépp yàpp ko dana nekk lu jafeñ a jafeñ waaye nag day jël ni mooy la ca ëpp maanaa man koo teg ngir jullit ñi mën koo jariñoo nga gis noonu lay ci liggéeyam lislaam dundam gépp ci la nga xamante ni daanaka boo doon xool ay taalibam ak i waxam ngay jàpp ni lii wëpp tax ci dund doomu aadama waa loola daf la yéen a suñ borom ak njimbalam moom la ko suñ borom bi ba tax laa defal loolu nag jërë jariñoo rawata xamante ni nag suñ borom dafa dogal gëna ñu ngi woote ne képp ci loo xamante ni namm naa yegg ci boromam bu dem dana te suñ borom jiw ko xam-xam fekk na defal koy tawfeex ñi nga xamante ni ñooy réew yi nga xamante ni yoon wi wax loolu kanam la jëm war nañoo xam moom la mu bind ndax ndax li ci gën a wér mooy la nga xamante ni bind ko bàyyi fi tante ni nag boromam xel nga tey si boo seet ni ñooy wane ne ñoom ñoo ko topp bu fekkee jëmm ji jëm penku la da ngay wax ni jëmm ji jëmm wane ne ñoom ñoo ko topp dafa la ñoo ci ëpp ñu topp seen bànneex ndax moom kat dafa liggéey liggéey bu sell boromam fii ba mu mel ni daal lu leen neex def leen lu lépp lu leen ragal maa loolu ku ne xam na ni amul nit yàlla buy wax loolu waaye nit yàlla liggéeyam ci kaw suuf mooy defar nit ki digganteem ak boromam waaye defar koy digganteem ak boromam li nga xamante ni moo nekkoon taxawaay yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moo tax ci ci tàmbali téere bi gannaaw bi nga xamante ni tàmbali na ci turu buur bi nga xamante ni mooy borom màgg di borom kawe di ko sell di suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent mi alayhimu salaatu wasalaam ñaanal ay ñoñam ñaanal saxaaba yi ñaan barke boo xamante ni suñu borom dana ko def ci woyu yi ñaane suñ borom def woy muy lu lu ñu jiital ci woy wi ndax téere ñaane day am loo xamante ni borom téere bi loolu lay jiital dooru ñëw ci lam bëgg a wax dëgg waaye mu ñaan nag lim jiital suñ borom def ko mu bokk ci li nga xamante ni mooy lim jiitali aljana bi nga xamante ni suñ borom déel na ko ñi nga xamante ni sange nañ seen kàddu sange seen pas-pas sange seen jëf ci lépp li suñ borom bi subhanahu wa taala gërëm yàlla na suñ borom nangu ñaan yooyu yëpp te defal nu barke téere bi mu wax ni wax na ki nga xamante ni wax na mooy kan ak lan moo ko tax a wax muy jëmm yàlla rek ngir loobiru mu léegi yëpp ngir ñu jariñu adduna ak alaxira ki wax kan la it koo xamante ni jaamu boromam la subhanahu wa taala bu mu doon xool ci martaba yi nit yàlla yi martaba bi nga xamante ni mooy dayab martaba yi mooy àgg ci li ñuy wax abdullahi dëgg dëgg jaam boo xamante ni suñ borom nangu na sax jaam mooy koo xamante ni jox na boppam boromam te muy dugg ci moom suñ borom natt ko ci wét yëpp ndax su fekkente ni jàmm bi dane man de suñu borom moo ma gënal sama bopp moo ma gënal sama alal moo ma gënal sama njaboot suñu borom dalay natt ci sa jëmm benn mu teg lay tawat yu tar ba xam yow da nga ko mën wala déet li nga xamante ni noonu la nattoo woon yonent yàlla ayooba yonent yàlla ayooba suñu borom ñu ko njëkk a jaare ci alalam mu amoon jur bu baree baree bari fekk seytaane ne suñu borom mën naa koo rékki suñ borom boole koog moom ba mu ñëwee ba wàcc jur gépp rey sàmm bi soppaliku ko bi mu ñëwee wax ko yonent yàlla ayoba mu ne ko loolu man sama yoon ko ci ndax moom moon alal bi suñ borom a ko moomoon daf ma koo dénkoon rek gannaaw jël na dénkaaneen loolu sama yoon ko ci moo tax jullit bi ne war nañ natt foofu ba xam la mu amee bu ko suñ borom yàqee wala mu lakk ko nan la cay doxale loolu lépp nag li ñu waxtaane léegi moo ca yóbbu nit ki mooy jaamu yàlla ba am ngëm bu dëgër boo xamante ni loolu yonente bi salaa salaam di wax ni as sabru xinda satmatil ula muñ fa tund ju njëkk ja fa nga koy defee waaye doo jàmbate jàmbat lala dal ku ne nga jàmbat kooku ku ne nga tawat kooku sama bitig ji nii sama alal ji nii sama yaram ji nii sama doom ji nii jàmbat koo jàmbat jàmbat ba cëgg di su cubyi nga ne ah lépp kon bàyyee naa ko yàlla nga koo dëgg soo ko bàyyi woon yàlla ba ba nga xamante ni tawat bi nee na la yukk ci sa yaram nga yukk muy lu tar lu métti wala sa alal ji lakk muy yàqu wala sa doom faatu fi saasa wala leneen lu métti dar la fa tàng tàng ba rek fa ngay delloowaat lépp suñ borom xam ne yow doo ca dara bu dee sa jëmm la sàkku sa bopp bu dee sa doom la joxoo ko sa bopp bu dee alal la joxoo ko sa bopp lépp suñ borom subhaanahu wa taala moo ko moom. nga xamante ni ci alalam la ko njëkk a defe noonu mu tontu ko noonu ba ni tawat ji. feeñal ci yaramam nga xamante ni àgg nañ ñàkk njabootam yëpp sax yi dañ ko daan wat wati ci kër gi ba ci sëmb nga xamante ni yax yi dañ koo lekk lekk lekk ba nga xamante ni yaramam yi wet yu ci bari yax yi ngay gis nga xam si laa jibril ñëw na benn bis di ko seet si mu ne ko nuyu ko ñetti yoon sëyu ko ba ca ñetteel bi yoon mu door ko fay mu ne ko lan moo tax mu nuyu na ñetti yoon sëyu mu ne ko boobu aw sax dafa nekk ci sama làmmiñ di lekk te bëgguma laa fay muy wadd wax ni maa ko xañ lekk gi nga xamante ni sax yi dañ daan wadd ci suuf sax wat daf lay jël tegaat ko ci yaramam ne leen man kat palaat laa boo xamante ni wala ndab laa fa- loo xamante ni suñ borom daf ma leen a jox nga gis ne kooku ku dëgëroon ak ngëm ñu ngi noonu yi moo tax Abdullahi su fekkente ne nit ki dafa jox boppam boromam wax ko wala sa alal wala sa njaboot nga ne suñ borom moo la gënal sama yett yi suñ borom daf lay natt bala lay tànn bala muy dugg ci inna ibaadi yi laysa laka alayhim sultaan ñooñu nga xamante ni suñ borom daf leen a jaamoo te seytaane duutu amati ci ci ñoom aw yoon faaw dañoo dugg ci natt bii nga xamante ne ni nga ko waxee ni am xasibtumoo an tadxulal jannata wala maa yaatikum masalu liseen xalaw min xablikum masatumul baxshaaw wa darraaw wa suusula xataa yaqulu rasul wa liseen amanu maahu mata nasrullahi alaa inna nasrullahi xarib loolu nga xamante ni suñ borom dafa wax ne bu leen njort ne mukk dañ leen di dugg aljana te nattuuma leen benn natt yooyu mën a nekk ci sa jëmm mën a nekk ci sa alal mën a nekk ci sa njaboot te mooy yëpp nag fu mu la mën di dikki rek nga delloowaat lépp ci suñ borom subhanahu wa taala noonu ma ko waxee nga xamante ni rënd rënd fitna naqar coono daana am ba yeneen yi sax dañuy wax naan kañ la ñu yàlla dimbali ngir coono bu métti ak tartar ba nga xam ne yenn saa sax ñi ko njëkk a topp ñu ne daj nañ ko ñuy jël nañ ay xeer di ko teg ci seen biir ñuy rendi nañ leen ba soxna si nga xamante ni moom lañ njëkk a rey ci lislaam soxna soo si duñ koy rey ab xeej lañ jël dëbb ko ci naqam am na ci jëmm joo xamante ni ab tànk aw ab dënam lañ jël takk buum ci tànk ndeyjoor bi takk buum ci tànk càmmoñ bi fas yu daw jëm nii fas yu jëm nii daw jëm nii noonu lañ ko xare waaye kenn mus ci ne oh sax dañoo nangu woon a dee ci yàlla lan moo tax ñu nangoo dee ci yàlla dañoo xamante ni dee boo gii mooy dund goo xamante ni yéeneetut fenn ndax dee mën da ñàkk kuy dund rek faaw nga dee jox sa bopp yàlla nag sa bakkan des ci yoonu yàlla mooy dund goo xamante ni yéenewul fenn ndax bu fekkente dañ leen dañ lay bëgg a weddiloo yàlla rek nga daal di weddi weddi du tee dee ndax boo ñu boo rëccee ci weddi gii nga weddi ngir bëgg a dund xamal ne faw waxalaa kulli xaalam bis dana dëkk ci bis yi nga faatu kon dee doonu lu mën a ñàkk moo tax ñoom gëm goo gi ñu gëm ak gëm gu dëggu goo gi ak jëfandikoo gi ñu jëfandikoo seen xel xam ne ëllëg yawmal qiyaama suñ borom subhaanahu wa taala dana leen defal seen ruu gi buñ rot rek ci tenqi malaayika yi mo ci mala tenqi malal axlaa ci lay tege ñu di ko yéegi ci pays sell yi ba àgg ca béréb boobu yi ñuy wax usuqul axlaa wala ñu koy wax usuqul mubin foofee mboolem yonent yi njëkkoon ak nit ñu baax ñëpp di génn seere seen ruux boog yi suñ borom gërëm ko ngërëm loo xam ne jëmm jógee day dugg ci xéewal yoo xam ne duutu jeex mukk muy gënal firdaws wa isaa raayta damma raayta naiman wa mulkan kabiran dugg ci nguur boo xam ne duutu jeex mukk nga xamante ne diir bi ñuy mel ne lu ñuy jël seen bakkan la daanaka du mat dara ñu dugg ci xéewal yoo xamante ni du jeex mukk yonente bi ba nga xamante ne ñooñu ko ñu ko topp loolu la daj nañ ko am na ñoo xam ne dañoo dagg seen bopp ñii ñu dóor leen dóor yu métti ñii ñu xiifal leen ay fukki at yoo xamante dañ leen def ëmbër bu kenn du jëndante ñoom kenn du jaayante ñoom kenn du deflante ñoom lenn ba yëf ya tartar yi loo xamante ni sax dañuy wax ni kañ la leen yàlla dimbali waaye la ca suñu borom teg rek ala inna nasrallahi qarib ndimbalul suñu borom subhanahu wa taala lu jege la ci ki nga xamante ni gëm la suñu borom nag bu la jaaralee foofu yëpp natt la suñ gëm dëgër jënd dañu ci la lay doon dugal nag ci inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan dugal na ci jaamam leen yi mu jaamoo nga xamante ni seytaane dootu am ci ñoom aw yoon mukk ci leen ñu defee li ñuy wax martaba boobu ñu alxurriya jaam bi ak ci xaddu ci lay mën a yegg ci li ñuy wax alxurriya suñu borom goreel ko seytaane dootu amati ci moom aw yoon mukk dundub addunaam day mel ni feet dañuy dugg aljana daje boromam subhaanahu wa taala moo tax noonu mu jëfandikoo Abdullahi boo ko duñ firi noonu lañ koy firee ak nekk ki nga xamante ni liggéeyaala day liggéeyal ki nga xam ne mooy ki ko yeggale ci boromam subhanahu wa taala muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ni mu ko waxee moom ci boppam bi mu nee bërëg dëgmal boromam suñ borom daf ko jox ñaar yonente bi kenn mënta yegg ci yàlla te jaarale wu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag yonente bi bi nga xamante ni moo ko yeggale ci boromam marale ko ak boromam xemmantee fa yitteeloon yëpp nag mooy liggéeyal yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam liggéey ba nag li ci gën a màgg gën caa kawe mooy yonente bi li nga xamante ni indi woon na ko ci kaw suuf muy lislaam wax ne mooy mot li jikkoy rafet yi sëriñ bi jóg ngir loolu yi nga xamante ni tool boobu nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci doon dañ mu jël ab boppam nag nekk te di ko sa liggéeyal mooy nit ñi gën a tënku ci lislaam te gën koo jàpp te gën koo fonk ni mu ko waxee ne lil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnata wal qara wa inni ahmadu nga xamante ni liggéey boobu la ci gën a kawe mooy leeralaat yoonu lislaam ba mu leer nañ ba jëpp jëmm joo xamante ni bëgg naa daje boromam ëllëg suñ borom nekk di ko ku ko gërëm faaw rek mu sóobu ci yoon woowee mu ni kookee nag mooy ki ñuy wax ahmadu mooy aw turam te yaakaaru wala du yaakaar mukk ku dut ki nga xam ne moo ko taw fee xele lu tëj woon ci moom lépp ci waaxir ak ci baatin mu ubbil ko ko muy suñ borom subhaanahu wa taala muy sant boromam boobu yi nga xamante ni moo def dënn wala nga ne moo def xol muy ubb muy muy topp fay cër yëpp cëri jaam bi yëpp xol ci lañ topp ndax nit ki lépp loo xamante ne xol bëgg na ko wala mu bañ ko rek cër yi ci def yëpp ci lañ ci lañuy dox di jëm ndax nit ki mënut a def lu mu bëgg ñaar moo tax xol mooy la nga xamante ni saa su yéwénee rek yaram yëpp yéwén waaye nag su yéwénut it yaram wi dara duutu ci yéwén mooy la nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne am na ci doomu aadama lumb woo xam ne bu yéwénee lépp yéwén waaye nag ku ñàkk yéwén dara duutu yéwén muy tudd sellam moom suñ borom subhanahu wa taala muy góor bi nga xamante ni woote na jëme ci diine ki nga xamante ni mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sangu képp ku yàlla bind muy tuddug sellam ba tey moom mi nga xamante ne mooy borom aras bu tedd moom suñ borom subhanahu wa taala lépp lu am suñ borom moo ko amal mooy ki nga xamante ni lépp lu mu doon ci moom la tàmbalee waaye it ci moom lay dellu moom suñ borom subhanahu wa taala mooy ki nga xamante ni mooy bind nit ak jinne waaye bind leen kat ngir lenn lu dul mu jaamu ko jaamu googu ñu boole ci ragal ko ak xemmeem rëhëban wa tabaxan rëh bu maanaam mooy ngay ragal li nga xamante ni suñ borom subhanahu wa taala tukkoo na ko ci képp koo xamante ni mi ngi ci lim tere tabaxan maanaam mooy xemmeem li nga xamante ni suñ borom digg na ko ci képp ku nekk ci ay ndigalam mooy tax تتجافى جنوبهم عن المزارج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ñi nga xamante ni dañuy soral seen sàlli yet su guddee ba ñëpp jàppanteeki nelaw ñoom ñu jóg jàpp ba seen jublu seen borom di ko sabbal di jàng alxuraan di tudd yàlla di fàttaliku jataay yi nga xamante ni danañ ci jaar ak wéetaay yi nga xamante ni ci bàmmeel la ci taxawaayu bis pénc bi ak wéet bi nga xamante ni jëmul jenn bi ci nekk dana ko wéet ak boromam ëllëg mooy ñi nga xamante ni danañ jaamu seen borom ngir ragal sawara waaye nag danañ jaamu seen borom it ngir xemmam àjjana waaye ñoom nag am na ñu leen gën a kawe daraja mooy ñi nga xamante ni danañ jaamu suñu borom subhanahu wa taala rek ngir ni kat suñu borom dafa wax ne wa maa xalaqtu jinna wal insa illa li yaabuduni bind ji mu bind ñu jaamu ko rek a tax ñu koy jaamu rek ngir jëmmam ji sell ja nga xam ne su àjjana amutoon sawara amutoon it ñoom suñu borom rek lañ bëgg mooy tax ñu di ko jaamu muy ñaan xéewal suñu borom ak mucc mi yàlla bu mu dañ du dotti ku ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci yonente boobu yi nga xamante ni moo ko bijjil bépp xéewal ak bépp njariñ yonente boobu yi nga xamante ni mooy aji dëgg ji adduna di ki nga xamante ni mooy aji ràmm ji di ki nga xamante ni mooy jubal képp koo xamante ni sopp na ko jëmale ko ci yë gën a am njariñ ci adduna ak ci àlaxira salaatu wasalaam mucc ak xéwal it yàlla nekk ci yonent boobu nga xamante ni it moom moo wax ni ëdduna jëngu aji gëm la ci lu dul aji settee képp koo xamante ni ku gëm yàlla rek ëdduna sa jëng la ab jëng mooy lan wala ab kasa mooy lan mooy foo xamante ni soo fa duggee dañ naan fii nga war a yem say wax nii nga ko war a limité léegi fii sa xool fii la war a yem li nga war a déglu fii la war a yem fi nga war a dox jëm fii la war a yem li nga war a jëfandikoo fii la war a yem nga xam ni adduna bépp jullit bu fi nekk rek dañ koo tënk loolu nag ñi nga xamante ne ay jullit lañ war nañ koo bàyyi xel bu baax xam ni fii suñu jóg ab kaso la ab kaso nag mënta neex képp ku ko bëgg a neexal rek bëgg nga leneen wala boo soggul da ngay dugg ca geneen wet ga ca des ñoom ñi nga xamante ni dañoo wax ni adduna mooy seen aljana loolu nag ñi nga xamante ne ay jullit lañ war nañ koo bàyyi xel bu baax ndax léegi boo ko seetloo adduna li nga xawla ma wala li tubaab li arab da xawla ma wala li tubaab di wax mondialisation nga xamante ni léegi daanaka culture yi nit ñi xàmmeetuñ ko xàmmeetuñ culture l'islam ak culture occident bi nga xamante ni léegi daanaka dañ ko imposé réew yëpp ndax léegi si tey nit ñi bu ñuy xool ni filme yi ak télé bi ni ñuy soloo rek ni tubaab yi solo rek moom la ñuy bëgg di solo ni ñuy doxe moom la ñuy bëgg di doxe ni ñuy jëfandikoo noonu la ñuy bëgg di jëfandikoo te fekk na déedéet kii nga xamante ni moom yaakaaru dara ëllëg yoomal xiyaama dugal rek la fay fekk yow mi nga xamante ni ab jullit nga am loo bëgg ëllëg war ngaa bàyyi xel ni waroo bokk kooke aw melo waru leen a bokk doxin waru leen a bokk jëfin ndax yow dafa am loo bëgg te li nga bëgg li la ca yóbbu dafa am luñ la wax ni noonu nga war a comporté woo am pas-pas yoo xamante ni moom nga war a pas-pasoo ak say jëfit noo xamante ni noonu nga war a jëfe kon nag doo bokk ko atte ki nga xamante ni yow la ngay yaakaar lépp yaakaaru ko yooyu nag yu mat a bàyyi xel la te bokk na yi koy gën di indi mooy jumtukaay yu xarale yi mooy lu mel ni télévision ak internet ndax tey bu fekkente ne yaa ngi seetlu bu baax télévision daanaka feleton yi nga wax film yi xeet film yi ñu ci jaar yëpp yi ñuy jàngale maanaam mooy koo xamante ni noo mën a amee alal fexe ba nax nit ki wala nit koo xam ne soxna soo xamante ni dafa am jëkkër di wut aw di wuti far wala koo xam ne dafa am soxna yi ba noppi di wuti ay far ak gone yoo xam ne dañuy am liberté lu leen neex wax lu leen neex def yooyu yëpp ñu bëgg ko teg ci ay liberté déedéet loolu ab jullit benn bu ci nekk war na koy daw te di ko wattandiku te di ko bàyyi xel xam ne ki nekk ci koso daal bokku tëb ki nga xamante ni moom ma nga ci ëtt ba ma nga ci pénc ma ma nga ci biir dëkk ba fu ko neex mu mën faa dem fu ko neex mu xool ba ki nga xamante ni nag ci koso la nekk ku ñu tëj la ay gëtam am na fu mu war a yem am na nu mu war a melowoo am na nu mu war a comporté woo loolu wi mooy tax nag jullit bi buñ ne adduna ab jëngam la ki nga xamante ni du ab jullit nga xamante ni ku tënkiku la wuru koo roy ci doxin wala ci waxin wala ci jëfin moo tax muy ñaan xéwal ak mucc nekk ci ki nga xamante ni mooy ki rotal jooju wax di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ni mooy kinub mooy sunub sang mooy ki nga xamante ni ni mu ko waxee moo ko bu doon ab jëng la ci moom it moo ko tënki ab jëngam tinki goo xamante ni nag tinku gu ànd ak sellal la ak kóolute gu mat sëkk mu ne nag lii nag yéen mbokk yi ngeen ngi xam-xam yéen ñi nga xamante ni borom yi xel ngeen te ni ñu ko waxee léegi rek jullit bi nit ku man di doon rek su fekkente ni doo du jëfandikoo xelam rek daanaka duñ ko jàppeeti muy nit ndax boo seetloo alquranul karim suñu borom subhanahu wa taala ñi ñu gën di waxal mooy ñi nga xamante ni borom xel lañ ndax xel mooy xalaat adduna ñi nga xamante ni muy gàtt la xamoo ko ngi fi jóge xamoo tey la xamoo suba la xel moo lay jox ni am na geneen dund bu nekk ca gannaawam nga di ko xalaat te dund boobee mooy lay sax ba faw waaye kër gi nekkul luy sax lépp loo xamante nan la caa jéng jëm ci tamit ab safaan lam la mën a jural gannaaw safaan bii muy bànneex bu gàtt wala loo jëf di ko wala lépp lu man di doon waaye doonu lu suñu borom subhanahu wa taala gërëm lam lay jural su fekkente ne sam xel xalaat na ko mu naqarati seen bëgg bu yemul fenn da nga ko mën a wan gannaaw loolu xel moo la koy tegtal su fekkente ni da ngaa nekk ci yiw ak lu baax it loolu lu la ca mën di fekk it da nga ko mën a muñ boo xalaatee lam la la mën a jural ci yiw ak barke ak tawfeex ndax boo seetloo ci adduna rek ñuy wut adduna rek daanaka dañuy jàng ngir bëgg a nekk ingénieur wala ngir bëgg a mën lenn métier rek daanaka luñ la luñ la dañ koy daj da nga gis koo xam ne buy jàng dana xiif dana mar ndax du am lu mu lekk amul bourse waaye lu mu doon dañ jàngam jaral na ko ko ndax saa su xalaatee ni man kat su ma demee ba nekk ingénieur wala bu ma demee ba am lu mu mën a liggéey mën a faj wala man lenn lañ lay fay saa su xalaatee pay googee rek ak lam ca amee rek day daal di féex lu mu mën a def ci lii rek du du sonn kii liggéeyal yàlla nag suy xalaat pay gi ko suñ borom di fay ëllëg loolu dana ko tax a sawar dana ko tax a gën a góorgóorlu waaye nag kii xuus ci safaan bu xalaatee bu baax li ko safaan mën a jural ci naqar ak ci sa bugam yéemul fenn dana tax mu man koo daw moo tax mu ni dañ ngën gi xam-xam yéen borom xel yi mooy xam-xam bi nga xamante ni dana jegeel jaam bi boromam subhanahu wa taala ni ki xam-xamu pas-pas mooy tawxid nit ki wéetal suñ borom subhanahu wa taala ci jëmmam ak ci jëfam ak ci melokaanam ak li aju ci tawxiid lépp ni ñu ko junje sànq ndax ngëm buñ ko doon waxtaane lu yaatu la ndax suñ borom ak li ci aju li yàlla ci moom amul benn melo woo xam ni melo wàññi ko la wu yàlla ci suñ borom waaye yëpp melow mat ñu ne askane la suñ borom la subhanahu wa taala gëm yonent yi gëm bis pénc gëm dee gëm dekki gëm àjjana gëm sawara ak siraat yooyu yëpp jullit bi daf ko war a gëm la ci topp mooy fiq loolu soo ko gëmee ba noppi it gëm bu dëgër loolu yi nga xamante ni suñu borom daf koo jaar na ci yonent yi muy téere yi nga am yéene fas yéene koo jëfe loolu xam mooy tax nga mën koo jëfe mooy tax xam-xamu fiq li yéenal gannaaw bi nga gëmee yàlla suñu borom it dafa am lu mu digle muy juróomi ponk lislaam yi muy julli gannaaw ba nga defee ñaari baat seede yi julli dafa am nuñ koy nu ñuy jullee ponk ci jullee la ko yéwéne rek bu julli bi yàqoo lu koy defe rek lépp nga xam ko ak màkka natt asaka weer weeru koor yooyu yëpp it nga xam nan lañ koy jëf nan lañ koy defee ak lu ci yàqu nga xam nan lañ koy jànge loolu mooy xam-xamu fiq xam-xamu tasawuf ci gàttal mooy nga fexe ba loolu lépp soo koy jëfit doo te gis sa bopp waaye yàlla rek moo la koy tax di jëf nga xamante ni loolu mooy kon ak rafetal mooy xam-xamu tasawuf ak ak nag beneen bépp ñett xam-xam yooyu su ma tey it am na yeneen yoo xamante ne ay tafasil la maanaam yeneen xeeti xam-xam yoo xamante ni dana gën a mën a yéwénal xam-xam boobu ngir nga gën koo mën a jekku lu mel ni xam-xamu naxwu luxa ak bayaan ak mantiq xeeti xam-xam yooyu dafa nekk xam-xam yoo xam ne dana mën a tax dana mën a gën a yéwénal ak xam-xamu usul yooyu yëpp dana mën a tax ñett xeeti xam-xam yi mën a yéwén kon loolu mooy li nga xamante ni mooy muqaddima bi nga xamante ni moom la sëriñ bi jiitaloon mu ñëw nag ci téere bi dëgg-dëgg téere bi ñu ngi koy fàttali mun a wuru sudóor la tudd mun a wuru sudóor maanaam aji leeral ji dënn bokkut ak mun a yunu sudóor bi mu ne yow mi nga xamante ni da ngay xëy jëm ci sàkku xam-xam na nga jàpp sama dénkaane bii te nga sàmmanteeg sama kàddu yi ngir jëmmi sa borom subhaanahu wa taala saa soo jógee bay sàkku xam-xam na nga ko sàkku rek ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala kon da nga nekk di mbégum ñi nga xamante ni suñ borom ñu ngoon fii ngir adduna ak alaxira muy wëliw yi ak borom xam-xam yi nga xamante ni ñu ngi jëfe seen xam-xam te yàlla rek tax bu nekk jëmm joo xamante ni da ngay sàkku xam-xam mukk ngir foo dem di toog di nett li rek di wane ni yow ku am xam-xam nga ngir nit ñi bëgg xam ni yow kat ku am xam-xam nga waaye sàkkul xam-xam ngir mën a yegg ci li ñuy wax diraaya muy xam yàlla dëgg-dëgg xam ko muy xam-xamu baatin boo xamante ni moo lay jegeel sa borom subhaanahu wa taala ba nga amoog ràññ boo amee ak ràññee ci ndigal yooyu la suñ borom jox la tax mu digal la ndigal yooyu yi ngir nga mën a yegg ci melo yi nga xamante ni moom la suñ borom subhaanahu wa taala gërëm ci jaamam loolu na la tax di sàkku xam-xam bul sàkku xam-xam mukk ngir nit ñi di jàng jëm si ci yow fa ngay tàmbalee xam-xam bul nekk koo xamante ni la la tax di sàkku xam-xam mooy nit ñi di jàng jëm si ci yow boo demee ba am xam-xam nga nekk koo xam da ngay ubbee wala nit ñi ci yow di la laaj wala ñu la jox benn daraja ak yu mel noonu waaye na ngay sàkku xam-xam ngir génn ci ak réer ak mucc ci ro ci lori réer waxtu woo xamante ne yaa ngi sàkku xam-xam wala ngay sàkku leneen lu dul xam-xam nga di ko sàkku rek ngir sa bakkan ngir ak yëkkatiku wala ngir alal ak lépp loo xamante ni dana la neex lu méngoog sa bakkan wala sa bànneex na nga xamante ni jaay nga sa adduna boobee ngay sàkkoo xam-xam ngir ñëw lu mu wax ci sa alaxira kon na nga daw ci jóge ci sàkku xam-xam ngir sa bakkan wala ngir am alal wala ngir bànneex waxtu wum la gaare na nga jóge ca loolee waaye boo ca dawee it na nga daw jëm ci sàkku xam-xam ngir jëm yàlla rek ngir xam yoon wi nga xamante ni moo lay mën a yeggale ci nga mën a am ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala su fekkente ni nag ñi nga xamante ni dañoo jamononteeg yow seeni xol dañoo jeng ñu jëm si ci yow ci jubluwoo ko ci xëy na sa jikko ju rafet wala sa rafetu xam-xam tax na ñooñu ñu jeng jëm si ci yow na nga leen xamal li la yàlla xamal te yàlla rek tax képp koo xamante ni dox lu dikk ci yow na nga ko xamal xam-xam boo xamante ni dana ko jegeel boromam dana ko sori ëgg rëy ak lépp li ko aju te yow it foo toll na ngay taqoo ak ragal suñu borom subhanahu wa taala ak tegginu ma sëkk ak di toroxlu su boobaa day kon ñi nga xamante ni boroomi xam-xam boroomi teggin lañ ñoom ñëpp duñ dañ di buur di buur si ci yow ngir di la siyaare ngir jëm suñu borom subhanahu wa taala na nga xam ni xam-xam ak jëfiku ni ki teggin ñooy li nga xamante ni ñooy fàggul nit ki ak mat nit ki ngir mu nekk nit ku mat ni nga xamante ni noonu la ko suñ borom bindee ci teraanga ak tawfeex yi ko suñ borom bi subhanahu wa taala defal mu gënal ko ci lépp lu mu bind la ko ci yóbbu mooy xam-xam ak jëfe ko te yàlla rek tax boole ci teggin yu mat sëkk ci digganteem ak boromam ak ci digganteem ak moromam ndax loolu mooy tax li nga wax boo doon xool bakkan yi nga xamante ni ñu ngi koy lim nafsul amaara bi su njëkk ci ba ca an nafsul kaamila loolu lépp xam-xam ànd ak jëfe ko jëf mooy jihaat ak sa bakkanam yooyu yëpp dafay dugg ci jëf nit ki su fekkente ni dafay jóg jëm ci boromam ñaare bakkan daf lay digal aw ñaawteef soo rëccee ci loolu ci nafsul amaara bi sooyu da nga ñëw ci nafs lawaama àgg ci soo fekkente ni bakkan mu ngi lay digal aw ñaawteef lay góorgóorlu ba génn foofu lu mu woo def ñaawteef yooyu wala li nga koy def dana sore ñaare heure boo defee ab safaan nafsul lawaama dafay daal di teew yow kat li nga def yënnut ku toll na yow waroo def lii suñ borom ni mu màgg ni mu kawee ni mu selle yënnut benn jaam di ko moy xanaa xamoo lii boo ko defee lan lan la la mën a jural ëllëg sa diggante ak sa borom wala sa diggante ak say morom bakkan boobu dina yedd soo ci jógee an nafsul mutmainna nga xamante ni da nga àgg ci sa bakkan moom nee na coow ci ndigalu suñ borom te mënatu si gëpp nafsul mardiya nafsul raadiya ba ni ngay agsi ci nafsul mulhama ba ni ngay yegsi ci nafsul kaamila mooy tax yooyu yëpp aw yoon la yoo xamante ni suñ ko doon misaal yoon yu gudd gudd la yoo xamante ni jaam ñi nga xamante ni dañuy wax dem ci seen borom ci la ñuy jaar waaye nit ki sax su fekkente ni yëggut ci maraatu bi yu kawe yaa kawe it ngir mu mën a am ak mat rek faw ci xam-xam ak jëfe ko boole ci ay teggin ci la ko mën a amee ndax nit suñ borom subhanahu wa taala daf lay bind ci ay marahil ak ci ay maratib yoo xamante ni xëy na léeg-léeg li nga xasanul abraar sayyiatul muxarrabina da nga gis koo xamante ni la muy jëf ba jàpp ne ak mooy la sax aw yiw moom lay doon ci keneen ki nga xamante ni mooy ko gën a suufe la mu ne nag képp koo xamante ni nekkut dara ci yii muy xam-xam ak jëfe ko ak teggin ci ña nga xamante ni ñoo ko làq sopp leen su boobaa na nekk na jëmm joo xamante ni jëmm ju tooñ boppam la yow mi nga xamante ne yaa ngi laaj jën diine mooy diine ji gën ba ba def na ko tànn fa suñ borom subhanahu wa taala na nga jàpp diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Moustapha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam na nga wóolu ni naka diine fa suñ borom subhanahu wa taala day mooy lislaam diine jurub lislaam rek fa suñ borom duus ko nangu ñi nga xamante ne loo ko suñ borom subhanahu wa taala waxee ci téeram bu sell bi inna diine indallahi islam diine fa yàlla day mooy lislaam képp ku ko indi geneen diine judul lislaam suñ borom subhanahu wa taala du ko nangu bi bi nga xamante ne yonente bi wàcc na rek ci la diine geneen judul lislaam ci la fare nga xamante ne la yonente bi indi rek mooy lay wër diine yoo ko njëkkoon nag képp koo xamante ne tënku woon na ci njëkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di woote woote boobu ci ndigalul suñ borom subhanahu wa taala ku ca tënku woon ca sart yooyu suñ borom tënkoon na ku ca jaar ci ngay mën a yegg ci man njëkk yonente bi ñëw ba ba faatu ca kookee moom aji texe la aji mucc la aji làq ngërëmal suñu borom la waaye gannaaw yonent bi nag leneen lu nit mën di diine woo lu dul lislaam du am njariñ képp koo xamante ni diine woo na jëneen diine juru diine lislaam dees na ko dàq ca péewu suñu borom ba fa du dugg aljana mukk kon na ngeen jàpp wii way mu nekk war wi aji jariña mu nekk lu ñu jiital ci téere ji ci diine ki nga xamante ni mooy aji far ji ay bakkaar muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne suñu borom subhanahu wa taala jiital na ko yàlla na suñu borom subhanahu wa taala defal ak dégg ak topp ñu def ci téere bi insha allahu saa suñ suñu borom defee lay tawfeex te doon la ñoo kàttanal bàyyee na fi danañ ci ñëw insha allah ci yeneen i jataay